xam ngeen balaa ma doon dem au mois d'août dernier Sénégal wa jotoon naa fi cof ba ma demee Sénégal mun ngeen xool ci sama page Facebook sama compte Facebook man aw ma page sama compte Facebook j'ai fait un live quand j'étais à Dakar ci sama euh, structure bi ma taxaw fa samay bureau j'ai fait un un un live ma wax leen pour 2024 lii sama xalaat en tant que citoyenne sénégalaise kese jamono bi fu ñu toll nii ak menace bi pesé ci Afrique surtout Afrique de l'Ouest nga gis Ousmane Sonko ak ñi nekk ci Nous ñu le pétrole feeñ Sénégal ak gaz Nous gis ne Ousmane Sonko qui a jàppale man mi ma xam ci dara ay ponkal ñoo koy fi diaspora des gens influents bu nous faire encore une fois Sénégal dafa un pétrole ak gaz ñun le Sénégal soit comme Burkina Faso ou comme Mali kon président Macky Sall nous ñu koy lancer un message mooy man en tant que citoyenne sénégalaise waxoon naa ko fi ma koy président Senghor dafa téye réew mi ba muy dem mu teg ko ci loxo yu wóor ci loxo président Abdou Diouf président Abdou Diouf nek fi ba muy dem ñu gañe ko mu dem dem bu rafet teg loxo tek teg Sénégal ci loxo yu wóor muy loxoy président Abdoulaye Wade ñu nek ci jàmm ba président Abdoulaye Wade di dem. dañ koo gagné président Macky Sall moo ko gagné mu jël réew mi teg ko ci ay loxo yu wóor muy ci loxoy président Macky Sall ñu dégg jàmm ko président Macky Sall ak fi nga jaar ci politique ak li nga def pendant plus de dix ans ci Sénégal man dama jàpp ne booy dem na nga teg Sénégal ci ay loxo yu wóor na nga teg Sénégal ci ay loxo yu wóor ñun Ousmane Sonko doyuñu ñun Ousmane Sonko doyuñu tay ji président Macky Sall tay bu toogee ne mom du bokk damay wax sama xalat bu gàtt APR amna ay kangam yu mun a bokk bu mun samp seen dënd waye APR dina toj ya trop de clan APR dina xex APR Ousmane Sonko jël réew mi te loolu musiba la diglu bu baax fi may waxee man dama japp ne président Macky Sall fu dëkk bi fu ñu tollu ni Sénégal suñu mënul toxal

pour qu'on puisse y voir clair Boy dem nga tek Sénégal ci ay loxo yu leer yu pas ces jeunes caïmans là avec à la tête Ousmane Sonko avec ces jeunes caïmans qui sont derrière et qui sont prêts à tout pour le pouvoir bëgguñu Sénégal mel comme Mali ou le Burkina Faso Té xamnañu luñuy wax Xamnañu tay boudi dee Idrissa Seck tey moom tey jii moom moom sa 2024 ñu wara dem bokk ak ñeneen man 2019 des militants de Pastef des militants de Pastef que j'ai rencontré ici à Paris ils m'ont dit carrément que élection 2019 bu que le deuxième tour amna entre président Macky Sall ak tamit Idrissa sec ñom président Macky Sall lañuy lañuy faral tellement ils ont la haine les gars de Sonko ils ont la haine contre Idi cest la c'est ils ont la haine bu Idrissa Seck lii ma Comme ko wax président Macky Sall jamono ji je accompagne le Sénégal même bu de cinq ans Vous munta ah y'a nga ci pouvoir homme d'étanga. nga xam Sénégal xam nga sénégalais Sénégal. rek euh, les conditions yo Sénégal d'une ko ailleurs. Euh, euh, euh, dinañ ko teg ci ay loxo yu wóor man de loolu moom mooy sama sama sama plaidoirie loolu moom mooy kii bu may lancé wax